Euh, Youssou liñ des ci temps bareetul mais mënoo fi toog ba jóg fi ñu waxtaan ci Waly yow xam nañ ne euh, dañ na sax yow yaay conseiller Waly sekk ci ay xalaat yu bëri ci ci musique ci li nga xamante ne mu ngi koy def ci carrière am te jigadu woo ko aussi ba mu ci nekkee ba tey ba ma leen fekkee ba tey ngeen di ànd parce que ma am na loo xamante ne fekkee naa ko te naa ko wax gis naa ne jigadu woo ko euh, tey nooy jàngatee tey li nga xamante ne moo xew jamono ji nii ci suñu milieu bi. def ko ci benn sortie defe naa ak waa Feeling Dakar. Mhm. suma ma juumul ci li amoon ci diggante timis. Mhm. parce que tey bëgg naa képp ku fi toog rek di jox la opportunité nga wax ci parce que euh, Baye Zal ñëw na fi. Mhm. wax na la lam ci xalaat. Ketchup démb wax na ci xalaatam. mais yow aussi euh, boobu ba léegi amuñu koo xamante ne xëy na ku jege waali la ku ci mën a wax. parce que njëkkoon naa la woo. amuñu woon temps pour nga fu nga dee da nga nekkoon ci ay euh, tey noo noo mën a jàngatee tey loolu fa amoon. au fait euh, <clears throat> euh, dafa di benn <clears throat> xew-xew bu am boo xamante ni vraiment par principe bu ñu ci wax parce que dañu rafetluwul amin bi ouais tu vois showbiz du làmb ouais ouais du làmb mm-hmm. làmb moo baaxoo commentaire. oui. làmb. Mm-hmm. commentaire mooy lu koy jëme kanam moo koy dundal. Mm-hmm. mais lii showbiz la. Mm-hmm. dañu am culture. suñu culture du musique. encore une fois. Euh, après indépendance. ba les années quatre-vingt. musique bi reconnaître uñ ko woon sax. Salsa moo fi nekkoon di lëmbe tu vois mhm. reconnaître ñu ko woon mhm. ñi njëkk a osé di mbalax sax dañoo doon sànni xeer waaw ak a yuuxu mhm. kon buñ ci liggéeyee ba mu dem ba jël palaasam ba mel ni mu war a mel ñu dem ba benn moment mu sooxe yàlla dimbali ñu may ñu xale bu am maanaa bu ñuy wax Waly Balago Seck mu ñëw suqali ko waat mu war a jëm kanam lu ne ci xel yi ak xol yi mooy fexe ba puso bii ñu mujjee bu mu réer. bu mu réer mhm. kon xale yi dañu war a def très attention. Mhm. mooy nañu xam ne ndono lañu lañu lañu lañu lañu lañu moomee. Mhm. te ndono li jógewul seeni këri baay. waay ndonob Sénégal la ñëpp ko bokk. ñu am yaakaar ci ñoom jox leen ko ngir ñu bay ci seen waar. te bu ñuy dem ñu teg ko ci loxo yu mucc ay ca Star Band. ca Star Band ca ba tey ca Étoile de Dakar musta ñaaw musta ñaaw. tu vois donc bu ñu demee ba tey ñuy am ci ñoom yaakaar. Mhm. ñuy def manqué ak doyadi. Mhm. dañuy sax ñun am kersa. Mhm. dañuy am gàcce. donc loolu rek moo tax bëgguñu ci débat. parce que buñ ci débat wee rek mu nduru làmb. waay day nduru xeex. walla xëccoo wala par parloo. te man euh, waalee ma gënal kuy woykat di xëyee ci réew mi. waaye jaraluma xeex. waaw loolu c'est important message bu. jaraluma xeex message bu am solo jaraluma xeex ak ku yàlla. mu ne ah. waalee ko gënal. Ah. kuy woykat ci réew mi waaye jaralu ko xeex. mais Yves. Mhm. bu ñu fàtte ne. Mhm. Euh, waa est-ce que lii gënul ci musique est-ce que lii gënul li gënul ci musique parce que. Mhm. Ah, li mooy showbiz laa defe ne. donc maanaam muy am ay coow waaw muy am ay coow waaw. ay am ay parce que bu ñu fàttalikoo. Youssou ak Wally. Wally. nii la doon attaqué Youssou ba am lu mu bëgg. déedéet déedéet da nga mos a dégg Youssou tudd waale. non non damay doon dafa bëri woon non non dafa ndànk dafa bul bul jaarle euh, Mbaye. waaw waaw mosoo dégg waale mu pointe doigt ak qui que ce soit. waale mm-hmm. non mais bii nag du cadre boobu. Ah. bii du cadre boobu. dañu dañu dañu duut baaraamu tuuma. waay dañ tuumaal waale quoi dañu tuumaal nit. Mm-hmm. koo xamante ne yëgul tinul tu vois mm-hmm. donc. Euh, bokkul bu ñu jaxasee bu ñu bu ñu ñaari. parce que dama gisoon sur ñu ne euh, Dakar ga si yoonu maa daan xam nga. ñu comparé ko ak mhm. ak. waaw Dakar ga si waaw. Dakar ga si waaw loolu ku ne sañ nga ko. Ah? loolu ku ne sañ nga ko. waaye ku xam Waly xam ne xale bu am yar la. waaw léegi nag est-ce que si est-ce que xam nga noonu la def waaye noonu la def ba am lu mu bëgg. Mhm. est-ce que nag yu euh, kii. Euh, toppul Sidi. toppul loolu noonu. toppul loolu pour am lu mu bëgg si waaye. maanaam ki fi nekk la la teg bët pour mën a am li mu bëgg. ok waaw. <laughs> Euh, ah, Mbaye ma waxaat beneen yoon ma ne. géem <laughs> bi yaatu na. bëgguma débat ci loolu. Mhm. parce que du làmb. commentaire ci làmb lay am. mais musique amul commentaire. mais euh, euh, fan sa nag sañ naa xalaat lu ko neex. sañ na faral ku ko neex. fañ na tuddee euh, ki mu bëgg. teg bu ko neexee teg ko ca kaw asamaan. waaye nag temps bi moo ñuy jugé après. tu vois parce que problème bi mu amee. Uh-huh. dañuy gis Sidy Diop def benn sortie uh-huh. wax ne man judduwuma ci famille buy way. Uh-huh. man li ma def nii ak li fi ma toll dama koo liggéey ba am ko. donc foofu mën nañ jàpp ne waa lay waxal. ci dégg-dégg Omaro génn na ne ñun xam nañu ña ko def. ñu ngi ci almadi ñoo nga ci almadi. jour boobu Wally Seck moo doon tëgg Ngor Timis. Sir Diop nekk Five. Queen donc bu waxee loolu. mooy moom tamit dafa féetale fi nga xamante ne moom moo di ci ñoom Wally. après nag génn na na ji di rectifier di wax ji. te boo fekk le coup était déjà parti. il faut le dire te am na beneen problème bu amaat nii actuellement dama gis ñaari affiche yu bokk benn dat benn boîte de nuit muy Sidi Diop ak Mandiaye Seck loolu aussi est-ce que du indil problème après musique bi paa mooy li ma wax rek xam nga li ma ubbee sànq Yves ci la ñuy dellu si rek mhm. mooy que ne euh, bu ñu ñu ñaawal li fi mag ñi bàyyi mhm. mais borom boîte aussi est-ce que du ñoom ñooy parfois créer yenn problème yi parce que tey nit mën na dem tey pour dem teg ci benn boîte artiste bi jaar ci suuf dem récupérer date bi ah doy na waar de lu ma maîtriser daal. et bon je crois que le problème mhm. c'est déjà les fans. Ah. ñoo koy indi un deuxièmement c'est l'entourage des artistes parfois qui sont pas sincères ak artistes yi. Mhm. on a toujours vu benn concurrence bu ñuy dugal entre artistes yi. dégg mhm. nañ ko ci Titi ak Viviane te bu ñoo jotee dara. concrètement ce sont les les les les rumeurs. Youssou Ndour ak Wally Seck te bu ñoo jotee dara. waaye Youssou Ndour papaam la. nee na sénégalais aussi lu ñuy wax aussi am na lu ñu ci xam. non tu sais pourquoi ñu tos dañuy dolli. Yves man je me dis que ñaar ñu bokk génération. bokk li ñuy def ku ci nekk mën li ngay def sa boor. Mhm. faaw ñu jéem a indi ay ruube. Mhm. loolu faaw mu am on est loolu mayul aussi artiste bi tey mu am benn riir ba egg ci niveau bu egg. aussi kii